wa fil lana

بخير ما ونجنا من كيدهم رجاؤنا نصرك لا يليم asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bu ngeen gisee sunu image bi ngeen xam ni tey ñoo ngi ci bis bu mag bi nga xam si ni mooy bis bu Cheikh Abdou Khadir yilimaan yilimaan yi ko yàlla fayal ñu nekk nag kenn ci njabootam kii mu duppee Serigne Fallou nga xam ni wax dëgg yàlla képp ku fi toog toogaayub Serigne Touba rek. ah jox nga ko ndigal moom la sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fa yàgg te wér moom la sëñ Muntaxa Mbàkke jox ndigal jumaa joo xam ne ñoo ngi ko fi ubbi rek ci Sénégal ci yoonu murit moom la jox ndigal rek ci ndigal ah, ki nga xam si ne moo fi nekkal moom ah, ah Serigne Touba mu Serigne Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te ñu koy ñaanal bu baax mu sëñ Fallu Mbàkke mii mu Cheikh Abdou Khadir Mbàkke tey jii nag ñu ngi fii ci pàkkam bii waaye ñu feggoo kenn ci njaboot gi kenn ci taalibe yi ñu dëppee ko Cheikh Abdou Khadir ah ñuy ñaan yàlla sunu borom guddal aw fanam wéral ay cëram sëriñ bi dañ lay laaj lenn ci kër gi ci lenn ci bis bi muy bisub sëñ bi xaadir bi nga wax ñu lenn ci jikko bi xaadir ak nag lenn ci jëmm ji nga xam si ni moom la nekk ci kër muy sëñ Fallu ah ñi nga xam si ni moom la dukkee waajur mbaax sëñ Fallu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki taalibe yi jullit ñoo ngi siyaare ñëpp siyaare bi tamit di ci jiital Cheikh Mouhamadou Mountakha moom mi nga xam moo fi nekkal Cheikh na Ahmadoul Khadim di ñaan sama borom ci mbaaxam ak yërmandeem mu yàggal ko fi ci barke bësu baayam bu tedd bi Cheikh Abdoul Khadir Elimani yi te nag yéen a ngi si kër Cheikh Mamadou Fadal moom Cheikh Abdoul Khadir nga xam ne mooy imaamu Touba di imaamu ratif Jumaay Touba ci comme ni nga ko waxee rek lépp lu jëm ci wàllu ubbite juma lu ci bari moom la sëriñ bi di yebal mu daal di koy jëfe kon nag këram gii tey ñu ngi ciy màggal bésu Cheikh Abdoul Khadir bi ci tàmbali bi nga xam ne moo tàmbali liggéey bi lépp nag mu ngi tegu ci sunna lañ koy màggal ko waral mooy arxulaan ak xasida ak bernde arxulaan ji sëñ bi bi mu jullee fajar moo ko tàmbali ñu jullee ñaar rakk fajar ba sëlmal ñaanal na ñëpp ba noppi dal di tàmbali kaamil bi ubbi ko kaamil bu njëkk bi ñaari kaamil yu njëkk yi si lañ ko tàmbalee ci suba gi ba tisbaar ji biñ jàngee it ba tisbaar ji sëñ bi bi mu jullee tisbaar ba noppi moom moo tijjiwaat kaamil bi jëm tàkkusaan ndax moo ñaan jàng xatmu bi ñaanal mbooloo mi ubbiwaat kaamil tàkku tisbaar bi jëm tàkkusaan tàkkusaan it noonu la koy def timis ba gee nga xam ne julli bu nekk danañ ci jàng ñaari kaamil kaamil bu nekk sëriñ bi moo koy ubbi mooy mooy jàng xatmu bi kon di ñaan lépp luñ fi ñaan ci mbarke borom tubaa barke Cheikh Abdoul Khadir sa borom ñu lépp daaray kaamil yi tamit loolu sëñ bi kër gi la ak njaboot gi daaray kaamil yi nekk si biir tubaa yëpp ñoom ñëpp ñu ngi fi kenn ku nekk yaa ngi jàng ab lim ci ko wàcce ci arxulaan kon nag muy loo xam ne bësu arxulaan la ndax Cheikh Abdou Khadre ñëpp xamoon nañ fu mu tegoon arxulaan xasida yi tamit bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci eh, da eh, daaru Xuddoos ak daaru Muxti ki nga xam ne fa la maami sëriñ bi nekk sëriñ Abdul Xuddoos taalibe yi nga xam ne ñoo nekk daar yëpp ñëw nañ fi lañ yendu ah, yendoo ci xaside yi ànd kook ñun at comme at bu jot niñ ko def ndax sëñ Abdou Khoudous mooy maami sëriñ bi moo jur yaayam nag bés bii ah, ñoo ngi ñaan ci barke borom Touba ak lam ca waxoon ci ay xarbaax nga xam ne gan ga nga xam ne gane na ko jamono di dimbalee dimbal loola nga xam ne da gane jamono di dimbalee ah, liggéey bii ñu koy liggéeyal di ko fàttaliku ci bés bu tedd bii lépp la cay xarbaax ak xéewal sama borom defal ñu ko ci barke Cheikh Abdou Khadir di ñaan nag seen chaîne yéen tamit ñi nga xam ne yéen a koy couvrir yàlla barkeel ko ba li ngeen ci yéen yëpp yàlla defal muy salaam TV ak làmp Fall FM ñoom ñi nga xam ne ñoo ñëw di couvrir bés bi ak salaam FM yéen ñett yëpp yàlla barkeel seenub liggéey ba li ngeen yéene liggéey lislaam yàlla defal leen ci lu kaw seen jot def jàmm ci réew mi nawet bi ñu tàmbali yàlla def ci barke ci barke Cheikh Abdou Khadir aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu mbokk ji li yépp ak ñi ñuy diglu di ñaanal ñëpp ñun ñëpp yàlla defal ñu tawfiix ci bisub Seex Abdul Xaadir yi nga xam ne bi muy gën a àddina yéen ma ne yàlla la indiwaale yàlla nañ ko yàlla defal mboolem ko teew fii rek yéen ma ne may fàttali sama bopp di fàttali ñëpp itam la nga xam ne moom la doon dénkaane mooy jàmm yàlla nango liggéey wattandiku tooñ wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun jaamu yàlla képp moo tax yàlla binduñu te itam tabax suuf it moo tax yàlla andi ñu fi dégg nga wattandiku tooñ yi tamit koo def kenn du la mbugal ci àddina kenn du la mbugal àlaaxira wala boog ku la mbugal dalaa tooñ te àllaaxira tooñ amu fa kon nag yàlla nañ yàlla saxal ci loolu bu baax a maa ngi ko dénk soog dugg donc ñëpp te teew fi ati ati at te yéen itam yàlla na yàlla def ak yokkute seen li li tax ngeen dikk fii yàlla ngeen ci am lu koy seen jot waaw ngeen nuyu ma seen i kilifa asalaamaaleykum